Assalamualaikum, monsieur le président ma ngi lay nuyu monsieur le ministre de commerce ma ngi lay nuyu di nuyu sa nattangoo ministre yi nga nekkal di nuyu sa collaborateur yi nga andal yépp di sante yalla bu baax ci waxtanu tay bi parce que suba ba ñi ngi fi te 22 la lañuy pare mu wër nañu askan ñu fi nekkal tay war nañu wax li nga xamanteni moy jafé jafé askan monsieur le ministre de commerce askan yu sonu nañu monsieur le ministre as euh, des commerces yi askan wi jaaxle nañu man nag comme man maay candidat nekkal fi askan wi doomu programme 155 Ma war a pour faj seeni soxla 2024 bu neexee Yalla. ci sama bopp lay tàmbalee gis nga monsieur le ministre mbirum courant bii le 7 17 mois 2023 est passé man maa une facture 209 100 francs sama kër genn kër gi nekk Touba men ñaareel bi barki dembu ñu indul ben facture bo xam maa ngi ko fay le sept 12 mois deux 100 euh, euh, euh, franc augmentation bo xamé 100000 francs manam franc francs franc ci lo xamante li doon tak may kon ne tàkk lenn sax dañuy fay ñu yokal ma facture courant mi ngi ni ñaari facture yi dal yaangi ni 200 200 mi ngi nek 274100 francs yaay franc problème tam man appareil yi boo fa nek batay kon augmentation comme man makoy koy dund astama ak monsieur le ministre dama bëgg ñu wax suñ mbokki pël fouta yi yor bitig gi dañoo son dafa am ben décret bo xam président de la république daf ko defone fi ni képp ko xamant ya nga wor bitig do jaay mburu te monsieur le ministre jaay ko tu mburu yooyu man mi buma xeyé ci si bi la jënd mburu bu ma ndekkee léegi bu mburu légui bu ay aayee bitig bi mburu pour ubbiwul fa lay ndekkee il faut que ngeen di loi ci mensidition bobu non te bitig bi nga xam mo nek sama kër manam mbollem ñama luyee ci bir kër yépp fofu lañuy jënd mburu ba paré yow même boko jëndé jëndee fële ci pour bi lañ ciy def muy ay ton ki nangam naam bitik bee la koy defal kon kay ay gi amul njariñ loolu il faut que monsieur le ministre ngir rew naa si décision bi bayyi pël fóote yu ñu liggéey ndax wax dëgg yalla dañu war liggéey parce que fi nak ñi ngi euh, def lu am solo ci économique monsieur le ministre daw da nga diggé won 1000 emplois yo xamanteni na nga ko recruter fan la mbir momu toll dégg na president de la republique joxe na la ay auto auto mo xamna auto campagne la lolou mo xamna ko parce que xam nga ni fi ak ñetti weer moom mënu leen fi manam jël auto yi jox ko ñuko wara jox pour que maanaam ñu man ko rodé rodé bi jaar yon xamna ni ko oto yi bu xamé numéro matricule bi dina xool moom dana jaar tuwa wala jaar Touba li nga wax nak légui ni dina la parce que sama xarit nga won sama xarit nga won sama rak nga won man yow Nasir Sambou mam dam ñang sam bu mi pap sam mi and ak eh, Macky Sall nazir ak sa pap sam mi and ak Macky Sall ak mam dam ñang yeen ñi ñoo da and mam don tok rompé CVC ma leen jox ngeen di bo bu yor leen dara léegi nag falu nga nek nga si nguur gi fatima ba nga faloo batay musuma defal dara musuma ñoo ci biiru tamit waye xamal ni mom lolu batay mi ko na sama rak nga sama talibé nga waye bëgg naa daal soxlaay askan wi ngeen xol si ta wacc ci terrain bi li nga xamantene manam mo jëm ci mbirum programme man la ma jàpp mooy commerce bi dañoo war a maanaam jéem a xool nan lañuy ñuy encadrer ñi nga xamante ne ñooy commerçant yi ñuy mën a jaay njaay mu yomb mu baax askan mën sa jot. monsieur le ministre tey boo demee pikin fi nga xamante ni mooy pikin am na fa ñoo xamante ni tey boo demee seen kër yi duñ togg añ dem naa ba teg sama bët boo yoree benn junni war nga mën dem ab wala nga dem marché doo si mën a duggul lu doy junni boobu ngay jël ngeen dem si restaurant yi ngeen jënd ko ay palaatu ceeb. ñëw yàq ko ci benn bool ngeen bokk añandoo loolu am na pikin kon monsieur ministre fi mu toll nii Sénégal fi tollu bu demee ba Mali gën ñoo yomb maanaam ceeb gën ñoo yomb suukar gën ñoo yomb gasoil gën ñoo yomb maanaam li nga xamante ne mooy ay facture courant loolu jaaxal na ma kon bëgg naa nga xoolaat li nga xamante ne mooy sa programme te bàyyi télévision yi yow jàpp naa ni li nga xamante ni moom nga war a def ci commerce concentré dëgg-dëgg defoo ko politique rek ngay def

Honorable Ndey Fatou Sougou se prépare.